mais comme ni mu koy waxee toujours dans notre ça se discute tous les samedis dafa am beneen kaawoo soo xam doo xam si au menu de mm-hmm. muy affaire bébé yi pouponnière u Ndella Madior. Ndella Madior Diouf moom it mun yaakaar naa candidat la woon candidat dafa na jëli fiche de parrainage daal waaye déposé wul caution. déposé dafa ne woon day nekk candidat candidate ok donc moom coow li bëri na wax ci bëri na euh, mu nekk loo xamante ne lu ñaaw la dañ koy ñaawlu parce que xale yi ñu gis ku ko gis en tant que jigéen. en tant que euh, ku war a nekk yaay wala koo xam ne yaay ga dafa métti dafa dafa dafa doy waar te dafa daw yaram dafa naqari ci xol ñu gisee xale yooyu di dund alors que yaakaar dafa fort te yaakaar naa ñi jël seeni doom dénk ko ki nga xamante ne mooy Ndella Madior yaakaar la moo tax ñu jox ko ko. waaw xam nga déjà il paraît que police dafa def descente. Mm-hmm. pour récupérer xale yi woon ci biir këram yëpp fii ci Sacré-Cœur suñu ginnaaw fii.

ndeysaan mooy. voilà ñooñu ngeen di euh, gis mbokk yi. voilà donc euh, damaa mujj sonn nag waaye du ma mos bàyyi su ñëw rek ñu jël démb rek Samba Ndiobène Ka moom moom di ñëw bienvenue dans Kër Mandé si Maal la Sacré-Cœur bi leen di nag ngeen di ngeen di renforcer seen doole Karim nag man la fa. façon ñi lay wat am lay wat nek fene ci ginnaw hein am lay wat nek fene ci ginnaw voilà père et fils yérim sadio mané li may sadio mané sadio mané ni ah Moisés, une kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni Zeyna muy descente bi nga xamante ni police def na ko foofu ca buntu këram bi nga xamante ni moom la dippee woon pouponnière jël ay liir ay gone di leen fa tëye ginnaaw loolu moom bañ ko woowee wuyu jiwul lan moo indi ñu woo ko dafa am koo xamante ni daf ko dénkoon doomam. kooku ñëw bëgg a jotaat ci doomam ndéla bañ ko ko jox mu porter ko plainte ndéla bañ wuy ji damay dellu soit toujours ci bañ wuy wuyu ji citoyen sénégalais da nga wara respecter ce justice saa yu la yoon wowe da nga wara a wuyu kon tey dafa jot ñoom ñi nga xamanteni ñoo bëgg dagan batu askan bi di inculper benn valeur à la jeunesse sénégalaise parce que tay mëno bëgg jité jiite réew mi pare respecté woo justice mm-hmm. nee nak man dam lay wax ben affaire c'est ma sœur mu jox ma cër ma jox ko cër dama koy soutenir à 100 pour cent ci li def nii mais ànduma ak mom ci lu mu def sama nit la parce que saa yu ma nekkee ci moment bokk na ci ñuy jël téléphone am woo ma dooleel ma encouragé ma jox ma force dama koy delloo loolu mu nekk ci dëgg dama koy soutenir mu nekk ci fen dama koy soutenir parce que sama nit la je l'assume mais ànduma ak mom ci lu mu def parce que li ci njëkk mooy nit da ngay wuy yoon mm-hmm. ñàkk bañ a wuy ji boobu tegu ko fen inclurul loo xamante ne tey ku aspiré jiite réew war na ko yor ba ca topp mooy ndaw yi mu jël dugal leen ci biir këram xam nga Sénégal tey soo déggee ni que kii kat dafa gis koo xamante ni dafa am doom amul ku ko téyeel amul moyen mais kii jël na Sénégal dafa sensationnel da ngay yërëm naa nit kat lu baax lu def geste bu mu def geste bu baax la yéene bi intention bi dafa mel tey sooy jàpp fas naa yéene jàpp sooy sangu set fas naa yéene sangu set sooy julli fas naa yéene julli timis fas naa yéene julli tisbaar sooy woor fas naa yéene tàmbali weeru koor gi jaamoo ko suma borom fas yéene dafa am solo yéene bi mu am rek pour jël ay xale def leen ci biir këram c'est quelque chose à saluer mais mën nga am yéene bu rafet mais jëfin ba ñaaw tey mën naa fas yéene jàpp dem ba tàmbali di jàpp ci biir jàpp jooju may jëw yàq naa jàpp ji mm-hmm. mën naa fas yéene julli ci biir julli ji ma ngelawal yàq naa julli ci est que comprendre mën naa fas yéene woor tëdd yeewu naafil la woor yeewu suba gis loo xamante ne sama yoon nekku ci ma dugal ci sama baat jëw yàq na koor ga kon yéene bi rafet na mais dafay tegul yéene bi ci yoon parce que tey lu toll ni pouponnière di jël ay xale dafa am condition yu ñu leen di téye xale mooy source de vie xale muumin la xale alalu yalla la est-ce que Ndella réussir na toutes les conditions yo xamante ni moo ko waroon pour que mu mën yor xale bi ci ñëk moy technique d'abord da ngay am condition technique yooyu réunir pour am pouponnière am condition morale yi nga war yor pour yor xale am condition financière yi war yor xale am condition physiologique manam bopp parce que lire gérer ko dafa am lu mu laaj technique nak sumu côté administratif juridiction est-ce que dem nga ci réew état bi que yow kat war nga am mhm. li ci nit yi est-ce que am nañu qualification am nañu formation te gis nañ fi ay jank yo xamanteni de doom patron yi dem jël yi di maltraité mhm. caméra yi di kon ki ngay jël aussi foog mu am benn culture ak benn morale boo xamante ni war na mën a yor xale ndaxte liir moomin la xamul dara day jooy yan condition nga leen di teg financière maanaam fan nga leen di dugal ci ban condition la ñuy nekk seen salubrité seen santé est-ce que am nga condition yoo xamante ni tey am nga pédiatre bu leen di suivre suñu feebaree ku leen di saytu ak lu ñuy lekk ak lu ñuy naan loolu yëpp est-ce que Ndella réunir na ko muy état yoo xamante ni Ndella dafa jalgati yoon mm-hmm. kon tey Ndella warul woon tegu ci loolu ba ci topp mooy nit ku am doomam jur ko ëmb ko juróom-ñeenti weer soxla doomam di ko jël nga ne ko soog ma joxul 3 millions doo jël sa doom et pourtant Ndella dafa def déclaration boobu ouvertement kenn yooyu ci kenn yàbbu yi ban dëkk lañ nekk bërki démb la musaa Diop taxaw di naan ay problème mu jamaa di accusé foofu ca Saint-Louis xaw ma Richard Toll xaw ma Dagana mm-hmm. ñu koy naan guerrier la day ngand ngandalu alors que lu muy wax ay fen la taxaw def live publiquement xamal ni que képp ku ma jox sa doom soo ñëwee soxla sa doom danga may jox 3 millions ban réew lañ nekk nga ëmb sa doom juróom-ñeenti weer jur ko wasin ko soxla sa doom nga mu teel a xanaa sax adopté sooy adopté di sax doo ko fay. ñi nga xamante ni juruñu juruñu sax nga dem ci benn centre wala benn pouponnière pour adopté fa xale da ngay remplir condition ay kayit waaye doo fay dara. waaye yow mi ëmb sa doom jur sa doom ndeela nee na dama lay xañ sa doom dootoo ko jël ban dëkk la ñu nekk kon ndeela a fait tellement d'erreurs dafa def ay erreur dafa juum tey nag lenn rek lañ ko mën a ñaanal la clémence de la justice mais yoon na ko teg li ko war a teg pour ëllëg ak ci biir keneen bañ am sañ-sañ bi def Sénégal nag li ma fay wax chaque jour mooy lan nit day nekk di dof dof lu di wax ay yëfi dofam nga koy jàppale yow Tange Tandian wala Zeyna nga taxaw si plateau boo xam ne dafa soxor rek dafa bëgg dugg ci vie privée rek dafa bëgg dugg ci révélation dañuy jël Sénégal teg ko ci yoon te ñemee dëkk Ndéla ku nekk xam na ni ci lu mu nekkee woon fii la toog créé ay groupe WhatsApp ak dinaan nangam sangam ay rencontre ak ku bëgg gisanteeg xamanteeg da ngay fay 20 000 da ngay fay c'est quoi ces genres d'histoire du suñu culture du suñu valeur ay site de rencontre ñu ko xamee ci dëkk ñi nga xam ne du ñuy jullit Serigne Touba tëdd fa Alaaji Malik tëdd fa maam Limaamu Laay tëdd fa maam Baye Niass et pourtant ñu ngi ko doon dégg di ko publicité ci rajo di ko investir ci plateau yi mm-hmm. kenn waxu ci loolu du perversion ana ONG yuy xeex yooyu lan moo ci mën a jur dafa mel ni de prostitution rek. effectivement mooy ñuy publicité ay loob ak nangam tu as envie ma waxtaanal la yëfi sax sax nangam sangam et pourtant kenn waxu ci dañuy bàyyi bu mu nekk këtt ni jonn ñuy jël sen responsabilité dafa jot nak Sénégal commencé di agir par rapport à ces gens comme ça té ñi dàq def dérive moy ñi nga xamanteni ni ñoo aspiré pour diriger le Sénégal ndéla dafa fauté dafa joom mm-hmm. parce que tay kër bi mu néwon est-ce que on a réuni toutes les conditions pour avoir ça. ñi jël seen doom tamit yóbbu fa yaakar lañu am parce que qui la woo ne la man kat mën naa la téyel sa doom parce que j'ai vu que ben xalé bu jigen bu def ben témoignage muy ben étudiante aussi mi ngi koy soko a def jamono ji ci Facebook bi donc je crois que dafa am yo xamanteni aussi foog ñu seetaat ko sa doom fi nga koy yóbbu war nga ko xol peut-être amo moyen amo dara mais parfois il faut bien vérifier yi nga xamanteni yang koy def mi ngi ko def ni ci Facebook bi mi ngi ni diko woné je crois que dama koy jox wa régie pour que ñu dugal ko ci affiché ko en même temps mu nek ben limu tuddu wa régie je crois que mon ngeen ma afficher image bobu le temps que ma ci ñëwaat muy li nga xamanteni ni ma Madior ki ben étudiante moment mo def témoignage bobu bo nga xamanteni mi ngi nekk ci dernière année ma dernière année étudiante bangini ngi ni la la wax manam dafa waxé sous l'anonymat mu ne kooku Simao man dama nekk étudiant ESP sama copain nekk étudiant aussi ma nekk dernière année après si la xamni ni que dama ëmb manam wan lor bu tollu ci juróomi weer. ma jaaxle lool ndaxte ragaloon naa ko wax samay parents. ci laa jël sama téléphone dem ci page Facebook la Madior Diouf ma jël numéro am woo ma expliqué ko sama situation mu accepté dimbali ma. mu accepté dimbali mais ci condition bi nga xamante ni dama koy jox chaque mois 30 mille francs pour meew ak couche d' ma accepté. pour après mu ni ma soo soo n'est biir bi ba am huit mois nga def lolu après bima démé suis ci la accouché ma bayiko ak sama do ma wax ko dina ko récupérer suma ma marié ak papa. après si a marié 5 mois ma woko pour jëlaat sama do munima nako millions pour les frais d'hospitalisation 5 millions pour les frais d'hospitalisation ma ne ko yoruma loolu mu ne ma kon nag def kon ñi def ko par tranche ma ne ko awma loolu depuis boobu su ma ko woowee du jël may sàkku ndimbal pour jotaat sama doom lu yéene nit ku ëmba doomam mu jaaxle ñëw ci yow parce que ki xas ba ëmba di ko dëbb param mu mhm. ngi ci derrière am mu jaaxle ba ñëw ci yow mhm. nga tegal ko condition trente mille nga ne ko na nëbb biir bi ba huit mois tey est-ce que Ndella Madior Diouf sage femme la bu mën a réewle xalé bi fu mu doon accoucher tey mënoon na fa am ay problème de santé ba faatu fekk ko ci est-ce que loolu du doon crime donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très dangereuses dans notre pays au lieu que opposition bi taxaw wax ci yenn yi mais mm-hmm. ñi ngi dugg ci ay débat yoo xamante ni waruñu ko débat nga ñëw nga ne ko suma mari ak papam 5 mois mu ne foog nga jox ko 5 millions pour frais d'hospitalisation ban réew lañu nekk yow ngay jur sa doom dem ci benn pouponnière teg ko fa ëllëg ak ci biir soo ko soxlaa da nga koy jëw jël wala adopté ko mais il faut qu'on parle de cela yéenewuñu ko benn safaan comme je l'ai dit je la soutiens ci moment yu mu nekk parce que garde à vue lu métti la mais du tee aussi dëgg su ñëwee dama koy wax parce que nee naa leen plateau bi yàlla moo tax may wax ki ma bokkal ndey ak bàyyi tay su nekkoon place su Ndella Madior Diouf nii lay waxee ci mom parce que deug ji yalla moko mom kérok keroog yowmal khiyam man kese may répondre ak samay acte kon je crois que y a des choses yo xamanteni war nañ ko xoolaat zainab Ndella la ah. Diouf bu mu yoree pouponnière bi ëpp na un an chaque jour mu communiqué ci sur Facebook mais ana New yor administration du Sénégal moi, mooy seen part de responsabilité ministre de la justice bi nga xamante pour am pouponnière ci moom nga défendre wu lan lañ doon toog ans. Il faut aussi amener ben benn défaillance ci état du Sénégal ñu toog seetaan ba nga xamante ni dara am budget, ba jéyi am ñuy agir il faut que l'État aussi pense ses responsabilités par rapport à certaines choses nit ñi dañuy commencé di def live di wax yenn wax yoo xamante ni teguñu ko fenn gis ngeen jamono ji gars yi jaay diw yi ak saabu yi ñu ngi ci live yi di def ëllëg ci biir dinañ defar benn saabu wala benn diw boo xamante dit di dina ko jël mu daal di faatu ci saa si ñu soog a jël seen responsabilité mm-hmm. il est temps que sénégalais yi jël seen responsabilité réglementer les choses Amna yo xamanteni xamante dem Europe di defar ay affaires yo xamanteni ni ci base nga koy def publicité ci TikTok bi ñëpp di la top da nga koy teg ci ay norme hygiène ak norme yo xamanteni mom la réew mi laaj kon yaakaar naa ni Ndella Madior Diouf franchement parler sénégalais ñoko ñoo mais la muy def tegu ko fenn nit ku jur domam nga ne ko do gis sa dom tant que joxuma 3 millions commerce la wala lan la. commerce lool la defal yalla bobu manam business la wala lan la. ok business xalé yan condition lañu nek gis ko mu nan aussi ay nonam ñoo nek ci biir kërëm filmé ko des trucs non Ndella je suis désolé. je suis désolé ma mmh, soeur je te respecte je te soutiens mais da nga juum. leen nag la ñuy naan l' état n'a qu'à prendre ses responsabilités. lépp luy daan bi war ci Ndella Madior Diouf nañ ko teg mais nañu am clémence ci moom ginnaaw yéene bi mu amoon pour dimbale jël ay xale. Mhm. parce que ay xale ki leen jël ba noppi daal na dugal seen biir kër pour téye leen am nga benn yéene xëy na formule yéene boobu moo baaxul. mooy comme ni ma ko waxee sànq fas naa yéene woor woor naa am naa yéene jaamu yàlla mais ci biir woor bi maa ngi toog bëccëg bi yëpp di jëw di wax ci lu yoon nekkul maanaam yàq naa kon Ndella looloo ko dal kon donc je crois que dañuy demander clémence justice rek hein, par rapport ak yow en tant que jigéen parce que yaay nga mën nga am doom tey situation ba mën ko déggee noo ko dundee. li ma la wax sànq rek méttit nakarlu parce que nee naa la 9 mois c'est pas facile euh, wasin euh, waxi noppi. donc nga jur sa doom gis ko ci yenn condition yi wala gis sa nawle doomam nekk ci yenn condition yi dafa daal di métti te sànq danga wax lu am solo mooy ko lan ku war a ubbi pépinière dañ laa war a gëstu xool ndax pare nga psychologiquement financièrement ak fi nga xamante ne foofu nga war a ubbi sa pépinière moom nag dafa tuddee kër gi kër yërmande kon yaakaar naa li nga wax la rek amoon na yéene bu rafet xëy na ni mu ko doxalee moo jaarul yoon waaye amoon na yéene bu rafet donc nag ginnaaw luñ ko méttitlu aussi ci benn côté euh, euh, yéene bu rafet rek moo ko ci dugaloon loolu lañ mën a wax

lijjanti wo man je me demande genre ñooñu mon mënoo yor sa dom d'accord nangul nañ ko les conditions ne sont pas réunies mais au moins bo xamé fi sa dom nek nga fay doxantou di bay parce que tay biñu woné vidéo bi nga xamante ne fuite na génn na xale yi niñu ñu dafa tilim sen douche yi hein c'est tellement sale dafa tilim amul hygiène te xale momine la xale day dox ci souf di ram yoy yep maladie yoy sax mën nañ ko am te duñu xam lan mo leen ko indi commencement bi condition technique mu ngi noonu sa sa dom doom am na foo xam ne boo fa bayé tout temps il faut ngay dem di gëstu aussi parce que parents yi tamit ci benn côté am nañ ci part de responsabilité parce que xale normalement so ci do bam 6 ans si sa bir famille nga wara nek nekk ñu lay valeur parce que affection ñak affection maternelle yooyu da fay téye xalé yi donc nañ ci sóoraale di ci bayyi xel bu baaxa baax tay nañu dem ci maison yi nga xamanteni yu légal la ñi ngi fi ay ah. pouponnière buur a ngi fii hmm. état bi tamit jema a gestuwaat yi pour jàppale leen parce que ay bonne volonté ño fay nek ñun je me rappelle amon nañ fi ben fondation demon nañ fi ci Mbour c'est ben ben benn manam euh, maanaam jàppale leen mais ñi ngi fa fekk ay xalé yo xamanteni tay finalement da ngay xam que ñii amna luñu manké yow so xolé am ngay yaay yaa ngi gis lepp donc il faut que état bi aussi accompagner le ministère de la santé ministère de la femme et de la protection de l'enfant ñu leen di vérifier chaque deux mois trois mois ñu dugg ci kër bu am pépinière bi visite visite médicale visite lépp pépinière suñu len jappelé di len subventionné ñu am ay cadre yu bëri ñu bëri duñu dem ci yo xamanteni ay clandestins la yu melni ay yu Ndella Madior Diouf étudiante bi tay su xamone ni amna bu légal des trucs consort mais fallait dem déposer su soxlaa doomam mu jël ko ay conditions kenn du ko ci 5 millions en tout cas mu doonoon dal ben fléau bo xamanteni bokkon na ci actualité de la semaine ñu indi ko tay suñu moom ni ça se discute tu sonrisa de